ji ñu bëgg ci amal taxaw seetlu waxtaanee inondation yi euh, yooyu lee lan moo ko daal di waral lan mooy conséquence waaye waante tamit lan mooy solution bi ngir bu tawatee euh, jafe-jafe yi nga xamante ni ñenn ci askan wi actuellement ñu ngi koy jànkonteel mm-hmm. ñu bañati ko am ñu fas yéene ko waxtaanee ak kile euh, di du Niang nekk géographe nekk tamit environnementaliste su ñu koy nuyu di ko dalal jàmm. beaucoup Sabine. pour euh, invitation bi maa ngi lay jaajëfal bu baax. Mm-hmm. Euh, maa ngi nuyu aussi auditeurs yi euh, di nuyu. internautes yi tamit parce mm-hmm. que on est suivi à travers Facebook. Mm-hmm. voilà donc c'est un thème d'actualité. parce que inondation yi dañoo poser ay problèmes. donc euh, déjà maa ngi masaw ñi nga xam ne ni ni ñu ngi koy dund parce que c'est extrêmement difficile dafa métti c'est un c'est c'est un phénomène naturel mm-hmm. c'est un phénomène naturel donc euh, qui mérite d'être explicité parce que foo nit ñi comprendre mm-hmm. inondation yi justement Euh, lan mooy euh, causes yi. lan moo ko waral exactement lan waral ak mm-hmm. euh, exactement lan mooy conséquences yi ci ci population yi ñu koy dund. Mm-hmm. en même temps aussi bu ñu mënee ñu ñu proposer ay solutions. pour que nit ñi ñu mën a xam ne ni nii c'est pas un problème insurmontable justement voilà euh, tey ji bala ñuy ñëw sax euh, ci sujet bi dinañ la laaj euh, taw 5 septembre jàpp 6 ci la inondation yu métti am fii ci Dakar ak mhm. tamit pratiquement fépp ci Sénégal gis nañ Thiès est touché Kaolack également ak région yu baree bari mais déjà yow dañ lay laaj sax xalaat waaw ci sous région mais fii ci Sénégal actuellement lañ koy accentuer mais Euh, yow ban jàngat nga am ci li nga xamante ni euh, moo am depuis le 5 septembre taw bu métti boobu daal di am ba tax tey ji askan wi ñu bari nekk ci inondation yi ban analyse nga siy def déjà. Euh, analyse bi ma ciy def mooy suñu ville yi. Mhm. gëj nañ am vraiment ndox bu ay pluies yu mel ni. Mhm. c'est des pluies exceptionnelles. ñun euh, en climatologie euh, quand une pluie dépasse cent millimètres mhm. ce n'est plus une pluie ordinaire nekkatul taw ordinaire ba 5 septembre ñaata ñaata moo wàccoon. Euh, euh, environ 88 millimètres. en mm. fait c' est, c' est une pluie continue. y' a mhm. eu des interstices. Mhm. quelques minutes ay quarante quarante minutes quarante cinq minutes après mu reprendre recommencer waat donc c'est quarante huit heures pratiquement mhm. pendant lesquelles euh, le ciel a ouvert ses vannes mhm. parce qu'à un moment da doon taw ba ne sewet na voilà mu def ah, quelques minutes après mu reprendre voilà donc environ mhm. quatre vingt huit pour euh, déjà les premières mesures les mmh. premières estimations yi xam ne ni nii au niveau des stations de Dakar ici même Euh, en en même temps aussi am na ay station par exemple fu mel ni Sébikotane ñoom ils ont reçu plus de cent vingt millimètres mm-hmm. donc de pluie mm-hmm. donc loolu c'est une quantité énorme quantité énorme la moo tax véritablement dafa causer ay problème yu bëri ci ay dëkkuwaay yu bëri mm-hmm. ay ay ay gox yu bëri c'est-à-dire euh, justement eh, kon yow de est-ce que da ngay dëggal kii euh, comment dirais-je Serigne Mbaye li mu wax ni maanaam taw bi wàcce ci diggante cinq ak six septembre Euh, maanaam quantité boobu. Mhm. dafa mel ni luy waroon taw ci trois mois d'hivernage yëpp dafa wàcc ci guddi googu. bien sûr est-ce que yow loolu da nga koy dëggal. bien sûr xam nga. est-ce que loolu tamit xel mën na ko nangu. bien sûr en fait. xam nga mhm. hivernage. Mhm. c'est étalé sur une période de. trois à quatre mois pratiquement trois mois au Sénégal. trois à quatre mois. parce que y a des zones boo xoolee du selon un gradient nord-sud boo gisee boo euh, boo boo quitter sud. di dem vers le nord. plus. tu montes plus la période de l'hivernage dafa raccourcir mm. donc euh, boo xoolee euh, vers la Casamance eux ils ont pratiquement cinq mois d'hivernage pratiquement mm. Kédougou Casamance c'est mm. des zones où mm. day taw bu baax ils ont plus d'un mètre de pluie chaque année donc boo ñëwee jusqu'aux régions du centre ay Kaolack mm-hmm. foofu tamit dafay taw bu baax mm-hmm. nga continuer jusqu'au nord en passant par Dakar Thiès jusqu'à jusqu'à Saint-Louis foofu tamit tu tu sens que mhm. pluie bi mu ngi wàññeeku parce que y a un processus d'installation de l'hivernage mhm. et y a un processus de retrait de l'hivernage léegi euh, le ministre Serigne Mbaye Thiam lu mu voilà lu mu wax aussi dëgg la parce que boo xoolee un mhm. hivernage modéré étalé sur trois mois euh, qui véritablement est un hivernage qualifié de normal en fait dafa am ay quantité de pluie mhm. yu war a taw mhm. donc quantité de pluie yooyu bu ñu ko dépassé tak automatiquement on n'est plus dans un cycle normal on est dans un cycle véritablement exceptionnel te loolu mooy occasionner souvent inondation et effectivement le ministre a raison mhm. parce que pluie yu taw en moins de quarante huit heures euh, ci euh, et environ boo defee cumul bi c'est pratiquement trois euh, euh, mois de pluie ah bon trois de pluie maanaam lu waroon wàcc si ci trois mois yëpp euh, pratiquement dafa wàcc jour boobu. par exemple dafa wàcc 48 heures. Mm -hmm. en parce que boo xoolee euh, li ma doon expliquer mooy. Mhm. Euh, par exemple boo xoolee ñun dañuy def des études sur l'hivernage mm le début de l'hivernage les jours pluvieux dañ koy compter. Mhm. day am ay pauses parfois après pluie bi reprendre mais. souvent les quantités de pluie n'excèdent guère les cinquante millimètres. Mm. donc cinquante millimètres yooyu noonu. Mm. bu tawee tey cinquante. Mm-hmm. millimètres mu toog quatre jours mu tawaat cinquante millimètres. Mm-hmm. déjà c'est déjà bien parce que ça permet au sol de respirer en même temps d'infiltrer l'eau am na temps am na répit mais bu amulee répit c'est-à-dire muy taw van euh, ciel bi euh, ubbi ay vanam. Mhm. en moins de quarante huit heures tu reçois une telle quantité d'eau effectivement ça va. ça ça pose problème ça pose problème donc loolu lu mu wax en fait. Mhm. ñenn ñi mënuñu ko comprendre. Mhm. am na ñu bëri d'accord uñ ci ak moom. non loolu dëgg la. c'est des pluies exceptionnelles. dañu jàpp ne dafa wax waxi politicien rek. pour expliquer non non du wax euh, du wax politicien c'est techniquement. explicable. et c'est admissible aussi ñun du point de vue technique plus de cent millimètres de pluie sur une ville de da une ville comme Dakar où euh, Dakar se situe entre les isoyettes mooy les mm. lignes qui euh, une ligne qui relie de, euh, euh, des points d'égale précipitation mm -hmm. isoyette quatre cent lañ nekk mm Dakar donc normalement on doit recevoir quatre cent millimètres de pluie en moyenne en moyenne si en les trois mois non pas les sur mois c'est-à-dire sur toute la les, sur toute la durée de l'hivernage de l'hivernage donc quand on reçoit plus cent millimètres au en, niveau de certaines stations en quarante-huit heures effectivement mm -hmm. c'est une pluie qui aurait pu léegi euh, lan mooy expliquer Mamadou Niang le fait que euh, comme par exemple dañuy gis fu mel ni région Kaolack dafay taw. Mhm. dañuy gis ay euh, Kédougou Tamba dafay taw hivernage bi. Mhm. mais dañu gis ni région yooyu moo gën a tàng ci ci Sénégal lan moo ko expliquer. Euh, je pense que loolu c'est des facteurs climatiques. Mmh. locaux. waaw donc facteurs climatiques locaux Dakar déjà c'est un climat. Mmh. influencé par la mer. Mmh. fii euh, en fait c'est un climat qui est très en relation avec la présence du milieu marin. Mm -hmm. C'est-à-dire y a beaucoup de vents qui quittent euh, euh, la mer pour aller vers le continent. vous comprenez donc mm-hmm. c'est l'alizé maritime alizé maritime boobu moom mooy brasser code bi yëpp moo tax au niveau de la côte il fait mm-hmm. un peu frais euh, mais au fur et à mesure que tu avances à Mbour tu continues Mbour tu continues vers Fatick mm-hmm. automatiquement tu ressens une fois que tu vas en profondeur euh, à, à l'interland tu ressens vraiment de la chaleur parce que là-bas c'est un autre vent mm -hmm. qui souffle là-bas mm -hmm. en dehors de l'hivernage où pratiquement l'étendue du territoire est occupée de manière successive selon un gradient nord-sud par. Ah, en wolof. Euh, mhm. euh, par euh, mooy benn mhm. ngelaw bu ñuy woowee. Mhm. mousson boobu mooy indi taw yi. donc au-delà de de sax boo xoolee harmattan bi mooy souffler à l'intérieur de ces régions là c'est un vent dafa nekk ngelaw bu tànk. donc ngelaw boobu noonu. moo tax région yooyu di tàng di tàng malgré que dafay taw taw bu bari hivernage bi non taw bu bari hivernage bi boo xoolee ak tàngoor bi ça n'a rien à amul kii tey Bakel mhm. walla Kaolack walla euh, Tamba tàngul tàng Dakar sax moo gën a tàng à un mhm. certain moment mhm. Dakar sax si période bi euh, période hivernage bi exactement Dakar sax mooy gën a tàng souvent parce que l'activité économique avec euh, la présence des moteurs et tout fait que Dakar day am canicule mais foofu dafa dafay feex instant bi. mais en dehors de l'hivernage laa wax. lan moo tax dëkk yi gën a taw. au Sénégal di gën a tàng. parce que tout simplement. Mm. c'est un autre ils sont dans un autre système climatique local. D'accord. système climatique local boobu mooy les la Dakar est influencé par la mer mmh. par l'océan mmh. tandis que ñoom amuñu loolu mm. océan day absorber chaleur mmh. en même temps muy mu euh, day absorber chaleur bi parce que ndox boo xoolee. Mhm. en fait naaj bi nu mu tàng tàng tàng tàng day réchauffer. Mhm. ndox bi bu réchauffer ndox bi à partir de ce moment là dina am ay courant marin courant marin yi ñooy permettre en certain moment euh, ndox bu nekk ci ci ci ci ci biir a biir mu wëlbatiku. bu wëlbatikuwee day inda day indaale seddaay mhm. seddaay boobu noonu c'est des brises ça se ça se ça se manifeste par des brises des a fait euh, à fait à faible euh, vitesse ñuy dugg ci dëkk bi. Mhm. muy muy seddal dakaar mhm. mais boo xoolee même à Dakar. Mhm. tous les points de la presqu'île du Cap-Vert n'ont pas la même température. parce que au niveau spécialement localisé dafa am ay ay endroits yu mën a sédd yeneen endroits yi donc ça c'est des explications un peu localisées. localisées voilà donc. noonu la noonu la noonu la tëddee léegi ñu ñëw nag euh, ci inondation yi exactement hmm. euh, Mamadou Niang nga wax ñu euh, lan moo waxal parce que nekkul loo xam ne ci régime Macky Sall la wala Abdoulaye hmm. Wade la wala kii hmm. inondation yàgg na fii Sénégal lan mooy cause yi exactement lan mooy indi su tawee ndox mi tàkk bañ a dem askan wu bari di sonn di souffrir comme c'est le cas actuellement lan moo koy andi xam nga pour nga mën a comprendre inondation yi fii si Sénégal il est important mm-hmm. que nga comprendre le processus même de l'urbanisation fii ci Ndakaaru mm-hmm. ak yeneen villes yi parce que boo xoolee vulnérabilité des villes euh, de la ville de Dakar particulièrement est liée à plusieurs facteurs d'abord dafa am ay facteurs anthropiques mooy c'est-à-dire ñun nit ñi mm-hmm. ñooy approprié wu espace bi di ko socialiser occupation des sols et socialisation de l' espace donc ci loolu noonu dafa am souvent ay règles ak ay normes yu ñu dul respecter mm-hmm. loolu moo waral souvent l' environnement aussi le milieu riposte et quand le milieu riposte ça donne souvent ça mais euh, pour expliquer un tout petit peu de manière brève historique la euh, le processus même d'urbanisation de la ville de Dakar parce mm-hmm. que boo mm-hmm. xoolee au mm-hmm. début des années 1900 Dakar mu ngi nekk déjà capitale de l'AOF en 1902 parce que bu ñu transféré capital bi de Saint-Louis à Dakar centre de commandement AOF fii la nekkoon au niveau du plateau mais euh, yooyu au début du, euh, de ce siècle là boo xoolee 1900 pla Dakar plateau moo amoon pratiquement ay infrastructures plateau rek moo amoon ay infrastructure mhm. boo rombee plateau yaa ngi dem ci rëbës rëbës c'était moo nekkoon zone tampon mhm. entre justement euh, la ville et le bidonville mhm. le bidonville c'était Médina boo xoolee yeneen dëkk yi yëpp c'était des villages ngoor Ngor Diamaguène Rufisque c'était des village donc ay notables yi ñoo ci dëkkoon vous donc noonu noon noonu noonu ñuy continuer ñuy continuer ñuy continuer jusqu'à un certain moment mm-hmm. population yi di ñëw parce que nguur fu mu nekk c'est-à-dire le centre de commandement fu mu nekk souvent mm-hmm. on a besoin aussi euh, d'avoir des gens qui s'occupent un peu de cela mm-hmm. donc euh, noonu la processus bi muy dem muy dem muy dem muy dem muy dem je fais un saut vertigineux ba dans les années cinquante pour être un peu récent nga xool boo xoolee dans les années cinquante euh, Dakar a commencé à grandir. Mhm. parce que tout simplement activité bi mu ngi gën a bari nit ñi ñu ngi gën a. ñëw ñëw. Mhm. avec ak exode rural bi. mais mhm. dina am lu ko accélérer au niveau des années soixante dix et quatre vingt. c'est justement les crises climatiques. parce que ñëpp ñu dëkkoon au niveau du bassin bassin arachidier au niveau euh, des régions du centre. au niveau même du Sénégal oriental dañuy. justement émigré à l'intérieur du territoire mooy exode boobu noonu exode massif boobu c'était lié justement à la dégradation des conditions climatiques mm -hmm. parce que crise climatique yooyu ñoo affecté Sahel dañoo affecté Sahel ba benn ins nit ñi mënatuñu dund dund ci suuf mm-hmm. ñoom nga xam ne ni ni euh, suuf moo nekk seen levier premier mënatuñ ci dund loolu moo tax loolu moo waral ñu quitté foofu ñu ñu ñu ñu ñëw ñu installé wu Dakar mais seen installation nan la demee ils se sont justement au niveau de la euh, zone périphérique mm-hmm. parce que boo ñëwee aussi dans une aussi grande ville comme Dakar doo ñëw rek nga am dëkkuwaay mm-hmm. souvent on assiste à ces phénomènes la nit ñi bu ñu ñëwee dañuy occuper de manière de manière euh, illégale yenn quartier yi bu ñu ñëwee. ñu mhm. ñu installé fu ñu mën a dëkk rek baax na naa am fu ma nekk rek en même temps aussi voilà en mhm. même temps aussi boo xoolee ñëwuñu ñoom kese. ils sont venus avec leurs habitudes leurs coutumes et leurs pratiques boo xoolee fii à Dakar y a des am na ñuy bay. Mhm. am na ñuy am na ñuy ñuy ñuy sàmm. am na ñuy napp c'est-à-dire boo ñëwee Dakar par exemple amoo benn métier. balaa ngay exercer balaa ngay professionnaliser wu. métier bi nga indi mooy baykat nga. Mhm. da ngay ut fii fi ngay bayee. noonu la demee léegi nag ñoom fu ñu dëkk en réalité crise climatique bi moo euh, moo def côté yooyu noonu mooy les les les les quartiers euh, la banlieue populaire zone Pikine bi Guédiawaye. parce que Dakar foofu la gën a sonal la banlieue. foofu la gën a sonal. parce mhm. que euh, euh, gox yooyu noonu. Mm -hmm. c'était des zones pratiquement inondables ñu ci gën a bari. yu ci gën a bëri c'est des zones inondables zone yooyu noonu léegi ga euh, population. maanaam foofu waruñ fa dëkk waruñ fa dëkk c'est justement c'est des zones de cuvette. c'est des zones waaw c'est des zones de cuvette. maanaam zone yooyu lan lañ fa war a mën a def exactement. lan lañ fa war a mën a def c'est-à-dire c'est des zone qui ont été euh, d'abord ndox moo leen occupé woon. Mhm. ak crise bi. ndox mi dem. dem léegi yow boo ñëwee. ci par exemple ci mhm. terrain. Mhm. gisoo ndox gisoo dara. da ngay foog ne ni fii c'est habitable or que en réalité condition dégradation condition climatique yi moo tax ñëw nga nga fekk foofu euh, c'est habitable à l'instant T bi ñu mm. ñëwee mm-hmm. donc c'est c'est en fait c'est en quelque sorte mm. euh, une erreur moo tax ñu ñëw ñu dëkk ci gox yooyu mm. mais pour autant l'homme peut toujours dompter la nature mais mais lan moo tax souvent autorités yi di bàyyi ñuy dëkk ci gox yooyu gox yooyu parce que euh, souvent mooy andi problème bi wax naa la il suffit nawet bi ñëw mu taw benn taw bu am doole ñaar voilà c'est fini ñoom si wax naa la wax naa la wax naa la traversée historique bi mhm. processus d'urbanisation voilà wax naa la ko nu ñu quitté centre ville nga xam ne ni Médina moo nekkoon bidonville bi donc actuellement zone de tampon ñeneen mhm. quartier yi ñuy judd au fur et à mesure mhm. mais malheureusement l'État n'a pas très dans les années soixante ba soixante-dix quatre-vingt l'État n'a pas très tôt pris en compte ce facteur hmm. d'aménagement du territoire. du territoire parce que dañu war a aménager nit balaa ngay dëkk fenn. Hmm. da nga war a aménager ba ba nga xam ne ni fii foofu soo fi dëkkee euh, tun ne seras pas demain ou après demain sous le coup. Hmm. des catastrophes naturelles de manière générale. donc loolu moo waral tey. zone yooyu la banlieue la plus touchée. la banlieue hmm. euh, voilà et la zone exactement la plus touchée loolu moo ko waral boo xoolee banlieue bi. ay ay ay ay c'est des c'est des Sérères des hmm. Peul c'est-à-dire ñu jógee dans les régions centre et orientales ñoo fa nekk dans la grande majorité des cas d'ailleurs euh, souvent booy wax ak ñoom dañuy ne Dakar kenn dëkku fi ñëpp hmm. ñun ñëpp dañoo ñëw donc boo ñëwee aussi nga fekk des conditions d'accès souvent à la terre sont extrêmement difficiles au niveau par exemple de la ville euh, au niveau des zones où euh, tout est contrôlé yow da ngay ñëw nga dëkk. même bu dee àll mais comme tey jii Mamadou Niang le le cas des Parcelles Assainies de Kër Massar nga xam ni actuellement. Mhm. Euh, mbir mi sono na leen njiitu réew mi sax dem na fa y a juste un jour wala deux jours. Mhm. mais comme par exemple. Parcelles Assainies bu Dakar yàggul Kër Massar. bien sûr yàggul mais lan mooy expliquer foofu noonu la fait que sax ñu tuddee ko Parcelles Assainies. Mm-hmm. mais da ngay gis fii dañuy tuddee ay quartier ay Parcelles Assainies. Mm-hmm. mais bu ñu demee ba ci kanam wala mu taw benn taw bu am doole di nga xam ni fii voilà c'est non lan mooy expliquer le cas Kër Massar alors que bokk na si euh, zone yu ñu mujjee defar voilà exactement. Mm-hmm. Euh, voilà déjà Kër masaar bu ñu waxee Kër Massar déjà en 2005. 2005 2006. wat ba mu lancé plan Jaxaay c'était euh, un mm-hmm. site de recasement et mm-hmm. de relogement des sinistrés donc plan Jaxaay boobu noonu dafa am ay infrastructure saa yu ñu mujjoon tabax foofu mm-hmm. mais en réalité boo xoolee aussi situation bi rechérigir nii c'est parce que tout simplement régime libéral bi en certain euh, il faut aussi ñu wax ko ils ont échoué maanaam lañ fa waroon def defuñ ko fa fa waroon def defuñu ko loolu mooy aussi dëgg. parce maanaam boo jëlee quartier boo jëlee quartier bu mel ni par exemple. bu mm. mel ni Jaxaay y a des bassins de rétention là-bas mais malheureusement bassin de rétention yooyu dañoo dem ba nekk ay dépotoir d'ordure mm. parce que y trois aspects qui sont liés à la question des inondations mm-hmm. mënoo leen séparer mm-hmm. c'est la gestion des ordures ménagères mm-hmm. la gestion des eaux usées et le drainage des eaux pluviales léegi c'est trois questions intrinsèques te mënoo leen dissocier c'est pas possible léegi boo xoolee au niveau de Kër Massar juste jakaay man bi ma fa demee ma gis bassin de rétention bi ñu transformer ko en dépotoir d'ordure mm. nga xam ne ni ndox mi bu ñëwee mm-hmm. normalement au lieu que c'est un mm-hmm. un bassin à drainage gravimétrique mm-hmm. c'est-à-dire gravitation bi mooy tax foofu moo gën a pente gravitation bi mooy tax en fait ndox mi bu ñëwee day dem foofu directement après à partir du bassin di ko ñu évacuer ko mm-hmm. mais malheureusement bassin bi dafa fees dell mbalit mm-hmm. donc hmm. loolu fa ndox ma waroon dem. fa ndox léegi nag dafay dem ci kër yi. dafay dem ci kër yi parce que justement. Hmm. ndox mi fu mu war a dem occupé nañ ko. Hmm. par leneen. d' accord donc loolu dafay andiwaat ci tamit euh, question euh, d' habitude wala changement de comportement bi nga xamante ni njiitu réew mi ngi ko doon ñaax ci biir discours am. bi mu jël juste après les inondations. bien sur xam nga ci discours am. le président il a dit beaucoup de choses. parce que boo xoolee tey au niveau de Dakar la pression démographique. a entraîné une pression foncière ñëpp dañoo bëgg terrain et ceux qui justement euh, vendent les terrains mm -hmm. ne tiennent pas compte souvent de certaines réalités mm-hmm. nit ñi aussi les, les les populations aussi souvent à faible revenu ñoom moins cher la ñuy ut mm-hmm. xool terrain bi maa ngi koy baax na est que baax na est-ce que baax mm, mm, mm. non boo ne ak nawet bu ma fekkee tamit voilà est-ce que nawet parfois sax dañuy xam ni fii su ma fi nawet bi fekkee voilà si mais danañ fa dëkk mais dañ koy jënd parce que c'est moins cher c'est accessible à eux donc loolu euh, norme euh, li président de la République wax dëgg la zone c'est des zones de non-aedificandi yi kenn waru ci dëkk mais tamit bu fekkee dafa wax loolu dañ ko war a dañ ko war a tere maire yi mm-hmm. comme li mu waxee maire yi nañu arrêté autorisation yi ci ci zone de cuvette yi c'est-à-dire c'est une mesure qui doit être prise président wax na leen ko nañ arrêté cest à zone yooyu noonu dangay ngay lor ñu koy jënd après parce que ñoom xamuñu xëy na xamuñu wala parfois aussi même bu dee xam nañ euh, il veulent à tout prix habiter à mais maanaam zone yooyu bu fekkee mairie par exemple techniquement jaayuñ ko. pour mhm. nit yi dëkk fa. Mhm. zone yooyu par exemple lan lañ fa mën a def exactement. mais euh, loo xam dina mën a jëriñ askan wi. te du lor nit ñi mhm. Dakar y une zone spéciale. mooy zone des Niayes bi. waaw elle est réservée strictement à l'agriculture et à, des activités d'élevage. léegi boo xoolee zone boobu noonu déjà boo demee au niveau du technopole Pikine golf Golf Sud zone boobu ñu ngi koy envahir c'est une zone normalement xam nga. Mm. Mm. ville nu mu rëy rëy rëy war na am des poches. Mm-hmm. de végétation. Mm. poches yooyu noonu ñooy permettre séquestration carbone. dañuy am utilité Dakar mën a souffler en même Dakar temps. Dakar ne souffle plus loolu war foog ñu wax ko. non Dakar en fait souffle mais difficilement. parce que ba tey y a des espaces qui restent. Mm-hmm. mais ñu ngi koy ñu ngi koy occuper. Mm-hmm. imagine toi il ne reste que deux hectares. des Niayes mhm. alors que c'était plus de quatre cent hectares loolu évolution boobu déjà c'est une c'est c'est très dangereux une grande ville comme Dakar doit avoir des espaces euh, naturels je ne dis même pas espace vert parce que mhm. espace vert ñun ñoo koy defar mhm. c'est c'est c'est grâce au ministère bu mel ni de l'aménagement euh, et du cadre de vie de l'urbanisme et du cadre de vie ñoom ñooy defar espace vert yi mais espace naturel yi fii lañ ko fekk fii lañ ko war a bàyyi waruñu am euh, waruñu def pression ci ñoom dafa nekk dafa nekk dëkkuwaay. Mm. des oiseaux. Mm. tu vois c'est des c'est des réserves ornithologiques boo demee technopole boo taxawee di xool tu verras beaucoup d'oiseaux des oiseaux rares même qui quittent parfois l'Europe qui quittent le parc de Djoudj mm. donc loolu c'est important c'est pas parce que ñun les humains mm. on doit habiter à Dakar à tout prix que nous mm. devons quand même chercher les autres espèces de leur habitat naturel mais euh, euh, ci zone bi et tout mm-hmm. même région yi tamit am na si zone yoo xam ne dañ fay dëkk ay zone cuvette la mm-hmm. souvent sax inondation yi ci quartier yooyu lay gën a sonal mais fu mel ni fii ñu nekk Sodida mhm. Euh, wala Castor bi jëm ci côté Sénélec bi parce que suñ côté zone la. Mhm. mais da gis bu tawee dafay fees dell kenn dootu fi mën a jaar. Mhm. foog peut ñu toog vingt quatre après pour ndox mi doog a dem. Mhm. inondation boobu lan moo koy expliquer am na tamit yeneen quartier yoo xam ne ñu ngi fii. Euh, ci capital bi su tawee pratiquement dafay fees. il faut ñu patienter euh, vingt quatre heures pour ndox mi dem peut-être ce n'est pas le cas dans la banlieue parce que foofu su tawee pratiquement bu ndox bi xasee tak mën na nekk foofu ba hivernage bi yëpp voilà dañuy inondé fii su tawee buntu rajo bi fii dafay fees dell. Mhm. foog ñu patienter quelques heures wala vingt quatre heures pour ndox mi dem loolu lan moo koy expliquer. xam nga alors que côté yii nee nañ assenir nañ ko. voilà et tout. loolu en fait c'est le mhm. drainage c'est le système de drainage. Mhm. des eaux pluviales. qui est saturé. boo xoolee fii bu tawee je pense pas. que ngeen toog pendant plus de cinq heures de temps te mënoo leen dem. je le pense pas. fii dafay fees dell. day fees mais day dem mais day dem. waaw dina dem. day dem waaw donc l' essentiel. c' est quoi buntu Sénélec bi fële voilà. day fees mais day dem. dafay fees man li ma constaté. Mhm. li ma constaté. waaw bu tawee ndox dina am c' est normal. Mhm. parce que nous avons rendu toutes les surfaces pratiquement imperméables. foo gisul carreau di nga fi gis perron. foofu mhm. foofu boo gisulee perron nga gis tali. xam nga ndox du dugg ci tali. Mm-hmm. ndox du dugg ci karo. c' est des c' est des endroits qui sont devenus imperméables. Mm-hmm. premièrement deuxièmement le système d' évacuation des eaux pluviales. Mm-hmm. xam nga système boobu noonu bu demee ba saturé parce que tout simplement euh, les infrastructures. maanaam dafa baaxul. non question baaxul. c' est une question aussi que ces infrastructures souvent dañ koy dañuy bouché wu ak lan. ak des déchets des des déchets waxoon naa la ko sànq. Mm-hmm. c' est des questions. ñuy jël ci caniveau yi këpp fa mbalit. ainsi de suite bu taw bi ñëwee ndox mi du am fu muy jaar ndox mi du am fu muy jaar. Mm-hmm. Euh, justement euh, un problème de comportement. Mm-hmm. parce que nit ñi waruñu jël lu mel ni mbalit par exemple nga sànni ko ci caniveau. da koy boucher complètement te bu ko boucher suba sa kër bu taayee da ngay taxaw di yuuxu. or que or que problème bi yow yaa ko teg sa bopp. en même temps aussi curage dañ ko war a def mm. de manière avant l'hivernage dañu war a curer réseau bi mm. pour que ndox mi bu ñëwee mu mën a jàll tu donc euh, y a beaucoup de facteurs qui expliquent côté bi moom gis naa curage am fi mais terewul su nawet bi ñëwee bu tawee dafay taa waaw day taa mais day dem mm. day dem parce que au bout de quelques heures aussi c'est ça c'est à cela que servent les ouvrages mmh. c'est d'évacuer progressivement les eaux mais pas d'un seul coup lan moo tax Sénégal am problème mu assainissement lan moo tax Sénégal am problème mu assainissement parce que tout le temps euh, question boobu mooy ñëw il nous faut une bonne politique d'assainissement euh, une bonne politique d'assainissement endossée à une bonne politique d'aménagement du territoire waaw parce que boo xoolee tey ñu ngi wax waxu problème assainissement waa parce que parce que yaa ngi gis sont en train de faire des efforts mhm. effort yooyu tey moo tax zone yu bëri on été épargnées parce que bu tawee ba pare au mhm. bout de trois heures zone yu bëri yu mel ni HLM yu mel ni Padois yu mel ni Foire nga xam ne ni gendarmerie bi sax gendarme yi sax dañ doon dañ doon génn ñu bàyyi gendarmerie bi noon mais zone yooyu yëpp mat Philippe Maguilène Senghor mais zone yooyu yëpp tey alhamdulilah bu tawee en l' en moins de deux heures de temps ndox mi dem na yoonam parce que utal nañ ko yoon xalal nañ ko yoon bu tawee lu mu métti métti métti métti day dem il faut juste que euh, bi mu fonctionner te mu ngi fonctionner léegi bu ñu bu ñu bu ñu généraliser ça ça ça ça risque d'être un problème actuellement le problème se pose avec acuité au niveau de la banlieue. Mhm. te banlieue bi. li ko mais techniquement techniquement Mamadou Niang Sénégal amul problème mu non en fait on est en train de régler le problème. de l'assainissement. parce que ONAS déjà. Hmm. ONAS la direction de l'office national de l'assainissement. Hmm. du Sénégal. Hmm. ils sont en euh, colossaux au niveau des, des, des, grandes villes du Sénégal. C'est la première fois d'ailleurs mhm. que le Sénégal se dote d'un programme d'assainissement des grandes villes. Am musul am c'est-à-dire l'État de 1960 presque à 2012 a failli. loolu aussi il faut que qu'on ose le dire. Mhm. parce que lii échec la munoo jël une ville comme Dakar une ville comme Kaolack une ville comme Tambacounda une ville comme Touba. ah. Mm -hmm. et que ces villes là aient des problèmes justement de d'assainissement. Mm-hmm. oui. loolu warul am. parce mm-hmm. que tout simplement euh, les populations qui sont dans ces villes méritent un cadre de vie meilleur. Mm-hmm. et l'État doit s'en charger mais malheureusement de 1960 à 2012 gis nañ les pluies de 2005 2005 2006 yu xew même 2009 c'est pratiquement plus de 360 000 victimes. sera impacté quoi je veux dire. Mmh. tu vois donc c'est c'est extrêmement grave l'État doit gérer un certain nombre de questions parce que ça relève de son pouvoir. Mhm. léegi euh, Mamadou Niang ñu laaj la lan mooy plan Orsec exactement bi président déclenché waat euh, après pluie bu 5 euh, septembre bi. plan Orsec bi déjà euh, c'est juste pour permettre une mobilisation rapide des moyens dafa mel ni plan d'urgence pour gérer une question spécifique. parce que Orsec boo xoolee bu président demee ba déclenché ko. Mm c'est parce que tout simplement il y a urgence à agir. Mhm. on doit mettre urgemment tous les moyens matériels. Mhm. moto pompe mobiliser les moyens humains pour que justement population bi ñu mën a sentir ne ni nii véritablement l'État est en train de s'occuper du problème parce que euh, le président def ci injecter ay moyens c'est une enveloppe de dix milliards. qu'il la justement mobilisé pour mmh. faire face mmh. à ces inondations qui sont dues aux pluies du 5 au 6 septembre. tey bah, euh, j'ai été au niveau de ces sites-là. Mm-hmm. gis naa ni ni le il y du progrès. Mm-hmm. parce que euh, boo demee au niveau des Parcelles Assainies Kër Massar la cité pénitence. Mm-hmm. foofu benn côté bi déjà ndox bi jóge na fa maintenant dafa am beneen côté bu nekk. Euh, boo ñëwee Camille Basse mm-hmm. c'est-à-dire beneen côté bi à droite mm-hmm. boo jógee par exemple Sedima à droite côté boobu noonu euh, ba tey da am na ndox te ndox bi niveau bi wàññeeku na parce que boo ñëwee ci bâtiment yi boo xoolee ci bâtiment yi tu mm-hmm. vois que loo defa lii de environ wàcce na de environ dix centimètres parce que ndox bi bari woon na ndox bi bari woon na c'était pratiquement dem na ba boo duggee ci ndox mi mën na dem ba ci <laughs> mhm. donc loolu image yi nit ñi gis nañ ko mais tey euh, j'ai été là-bas hier même mais wàññeeku na bu baax ndax plan orsec bi ndax plan orsec bi c'est juste pour moi mhm. pour vous dire que la mobilisation des hommes et des moyens a a eu un effet mhm. sur la réduction euh, de l'impact. voilà léegi ñu laaj la lan mooy euh, plan décennal de lutte contre la euh, les inondations plutôt nga xam ne à chaque fois ça revient. Mhm. Euh, président Sall moo ne injecté nañ ci plan boobule mhm. lu toll ci sept cent cinquante milliards. bien sûr la lañ mën a dégg exactement tey boo doon expliquer auditeurs yi ñu xam. Mhm. lan mooy plan décennal de lutte contre les inondations. donc boo xoolee. le plan décennal de lutte contre les inondations.

Et c'est des infrastructures aujourd'hui qui ont permis justement à, certains, à certaines zones qui étaient très impactées lors des dernières précipitations, lors des dernières plus de 2005 jusqu'en 2009, d'être épargnées. Donc, euh, cette, euh, ce, ce, ce, projet, ce plan décennal plutôt, hmm. a eu un impact significatif. il ne faut même pas essayer de, de le nier maintenant. ñu bëri ñu bëri jàpp nañ ni. 750 milliards il n'en demeure pas moins que président fu mu nekk nii. Mm. laaj na ne ni nañ indil nañ ko indil benn évaluation évaluation plan bi pour que ñu mën a eggali li ci des e des mesures ont été prises parce que boo xoolee les les les les différentes phases. Mm-hmm. du plan. Mm-hmm. ci loolu laa bëgg a ñëw ni. Mm-hmm. Euh, y a eu une phase d'urgence phase d'urgence boobu. ça a permis justement d'injecter plus de trente milliards trente milliards yooyu noonu ça a permis justement de a permis de de de de de mettre sur pied des infrastructures mmh. au niveau de plusieurs zones mooy zones yi ma la cité sànq te zones yooyu noonu c'est des zones euh, très sensibles qui étaient extrêmement sensibles aux inondations mmh. loolu moo waral tey euh, lii na nu mu tudd ça euh, le problème en certains moment nul n'était à cause de ces pluies exceptionnelles on sentait que le problème des inondations était réglé mm -hmm. mais pluie exceptionnelle yu fi ñëw nii ça a vraiment posé problème parce mais mais mais maanaam bu fekkee da nga teg euh, euh, euh, une politique d' assainissement. Mm -hmm. injecté si tant de milliards. Mm le président parle de sept cent cinquante milliards. Mm-hmm. sept cent waaw sept cent cinquante soixante <laughs> voilà est la même chose. Mm-hmm. Euh, su boobaa normalement waroon nañu mën a dékku taw bu mel nii. bu fekkente ni xaalis ba fañ ko dug waroon dugal dugal nañ ko fa maanaam fañ ko waroon injecté injecté nañ ko fa ca wàllum assainissement et tout. xam nga xam nga tey. dafa am li DG ONAS bi wax quand on a un plan de sept cent cinquante euh, sept cent soixante mhm. euh, milliards ça ne veut pas dire que cet argent a été mobilisé on n'a pas mis sur la table sept cent mhm. euh, sept cent soixante sept milliards non par, par c'est de l'argent mmh. qu'on doit mobiliser et selon les projets et selon plutôt les urgences à injecter mhm. mais boo xoolee li ci gën a am solo tey il a eu un projet c'est le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique le projet projet boobu noonu euh, c'est un projet quand même qui a impacté mmh. aussi mmh. mais tey mënuñu wax ci plan boobu lu bëri parce que tout simplement euh, il faut qu'on attende l'évaluation que le président a demandé mm-hmm. évaluation boobu moo ñuy permettre mm-hmm. ñu am une vue d'ensemble, une vue d'ensemble sur les investissements qu on, qui ont été réalisés mhm. et sur ce qui reste maintenant à faire. Parce mm -hmm. qu'il reste encore deux, euh, euh, comme je l'ai tantôt dit, mm -hmm. deux ans. Il reste mhm. encore deux ans. Mhm. Euh, léegi <clears throat> danga may may ma ñëwaat juste ci lii bi ci première phase bi. première phase plan bi. première phase plan bi boo xoolee c'est une phase d'urgence comme ni ma comme ni ma ko waxee. Hmm. phase d'urgence boobu mu ngi dem de deux mille euh, douze à deux mille à deux mille treize. de 2012 à 2013. Mmh. Hmm. donc c'est 66 milliards qui ont été injectés de 2012 à 2013 et c'est l'ONAS qui a géré ça. Hmm. donc ça a permis. Mmh. déjà il ne faut pas nier aussi qu'il y avait des ouvrages. qui ont été réhabilités ouvrage yooyu bu ngi leen réhabilité ba pare. euh, ça a permis aussi de créer d'autres ouvrages. Il y eu des ouvrages, surtout au niveau de, de Foire. J'ai assisté à un certain nombre de travaux là-bas, parce qu'il foofu la déconne à un certain moment. Donc, ouvrage yooyu ça a permis une collecte rapide hmm. des eaux de pluie. donc pour pour justement les drainer et les évacuer pour que foofu bañ a am problème léegi la deuxième phase phase bu nekk une phase courte et moyen terme. Hmm. phase boobu noonu c' est justement entre 2014 et 2016 c' est environ 250 milliards qui ont été investis. Mhm. te investissement donc chaque année am na lu ñu war a def. par par phase. par phase parce que dañuy def investissement dañuy xool chaque hivernage est un indicateur. Mm -hmm. chaque hivernage est un baromètre. loolu moo waral en 2017 pratiquement l'hivernage 2017 a été un hivernage sans couac. malgré les importantes pluies. Mhm. Parce que y a eu, c'était un hivernage pluvieux, machallah, mhm. mhm. mais il n'y pas eu euh, d'inondation du tout. On n'a pas en tout cas ressenti les inondations comme on les ressent aujourd'hui. Donc loolu moo waral véritablement ñu ne on a réglé le problème des inondations. Surtout des zones comme Guédiawaye, Pikine nga xam ne ni nii hivernage jàll. gisoo pratiquement. Euh, ndox ay victimes yu bëri. Mm-hmm. donc loolu on on véritablement on a on a des résultats à faire valoir loolu aussi dëgg la. Mm-hmm. loolu aussi dëgg léegi la dernière euh, je damay ñëwaat ci projet tuuti. Mm-hmm. damay ñëwaat ci projet tuuti parce que le projet c'est un c'est un projet très important techniquement. parce que boo xoolee le projet a épargné environ cent soixante mille personnes. 167 000 personnes. 167 000 personnes décès pluie a épargné 167 000 personnes décès pluie parce que tout simplement il y a un système il y a eu un système de de collecte des eaux pluviales système boobu noonu il est constitué justement d'infrastructures de drainage très innovant boo xoolee c'est c'est c'est environ 63 000 mètres carrés de pavage. Mmh. donc pavage boobu aussi c'est c'est y a un, un réseau secondaire de kilomètres. en même temps aussi y a 21 collecteurs kilomètres de collecteurs. Mmh. en béton. Mhm. tu vois en béton armé donc loolu yëpp boo xoolee euh, projet bi mhm. ça a permis. comme je l'ai dit d'épargner plus de. Euh, plus de 167 000 personnes plus de 167 000 personnes. 167 000 loolu c'est une réa c'est une réalité indéniable nga xam ne ni def le c'est le pouvoir en place qui l'a fait il faut aussi euh, le reconnaître. d'accord léegi la fait que président dem pour secourir les les habitants de Kër Massar daal di wax ni. Mhm. Euh, dafay euh, départementaliser li nga xamante ni mooy Kër Massar. Mhm. loolu lan la mën a apporter comme solution par rapport ak inondation yi am foofu. Euh, xam nga y a toujours une logique de cohérence mm. euh, territoriale qui est recherchée comme par exemple c'est-à-dire mm-hmm. la gestion des inondations à Keur Massar est faite par les autorités euh, gouvernementales mm qui s'appuient automatiquement sur la municipalité maintenant boo xoolee le maire qui est là-bas mm -hmm. il est maire d'une commune Or que si on dissecte la, on, on, on transforme la commune en département, mm -hmm. on aura justement des communes. Et c'est plus de lisibilité. Quelles sont en ce moment, à partir de ce moment, on dira quelles sont les communes les plus impactées, quelles sont les communes les moins impactées. Et à partir de ce moment, il y aura justement, mm -hmm. on saisira mieux la question. Parce que la départementalisation aussi, c'est justement un redécoupage, une reconfiguration nouvelle de la zone. Mhm. cette, euh, reconf cette reconfiguration permettra justement de mieux comprendre quelles sont les zones bi nga xam ne nii par exemple boobu euh, quartier yu bëri ça va se transformer certainement en commune mm. avec une nomenclature léegi ça va permettre d'avoir une lisibilité. voilà juste euh, quelques minutes deux minutes je pense moo ñu dese. Mhm. Euh, pour yow lan mooy solution exactement juste en deux minutes euh, par rapport ak li nga mhm. xamante ni mooy inondation yi bu tawatee jafe-jafe yi nga xamante ni ñenn ci askan wi quartier yi ñu ngi koy am. Mhm. mu bañatee am wala mu wàññeeku bu baax a baax pour yow lan mooy si solution techniquement. solution yi techniquement c'est justement il faut améliorer le système de drainage des eaux pluviales ce qui est déjà entre fait doit euh, en train d'être fait doit être amélioré amélioration boobu moo ñuy permettre mhm. euh, bu tawaatee mhm. bu tawee plutôt ndox mi en moins de trois heures de temps dinañ ko évacuer mais également li ma la wax rek les questions il y a deux questions connexes c'est la question de la gestion des déchets ménagers et la question de l' assainissement des eaux usées. donc askan wi foog tamit ñu dugal ci seen loxo. foo ñu dugal ci seen loxo bañ di këpp mbalit yi. voilà di boucher caniveau yi fi affaire di di walla quoi. Hmm. loolu yëpp c' est des c' est des c' est des justement que les populations peuvent s'éviter parce que boo ko defee ba pare ci yow lay ñëwaat. donc hmm. il faut véritablement ko ñu. beneen bi côté état bi. côté état. Hmm. wax naa la ko. il faut juste encore continuer. le plan. de décennal de, il faut continuer à, à investir dans le sur l'assainissement pour que le plan puisse véritablement mettre sur pied des infrastructures de drainage sophistiquées mm. De, de, de des eaux pluviales voilà ñu bàyyi la Mamadou ñaa nga tàggatoog auditeurs yi ak suñu mbokk internautes yi euh, donc euh, d'abord maa ngi lay nuyu bu baax ci invitation bi mm-hmm. loolu loolu laa njëkkee woon sax mm-hmm. mais dama lay nuyuwaat parce que vous avez vraiment une ouverture d'esprit extraordinaire mm -hmm. et maa ngi nuyu auditeurs yi aussi ceux qui nous écoutent surtout à travers euh, hors du Sénégal à travers mm-hmm. le net qui mm-hmm. son beaucoup à réagir aussi maa ngi leen di nuyu bu baax et di la jaaj di leen jaajëfal vraiment merci beaucoup. voilà ñu koy remercier bu baax a baax Mamadou Niang xam-xama màcc ci wàllum euh, géographie ak tamit environnement ñu doon waxtaanee lépp lu soxal inondation yi nga xamante ne actuellement problème la file ci Sénégal euh, causes yi ak tamit lan moo ci solution ñu koy remercier euh, bu baax a baax ci leeral yi nga xamante ni andi na ko ci suñuy laaj di remercier Mamadou Diaw Diallo bi nga xamante ni moo nekkoon ci technique bi Léon Paul Mendy ci réalisation bi di leen remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque euh, samedi de 10 heures à 11 heures ak tamit internet yi ñuy suivre souvent euh, ci suñuy live euh, Facebook kon di leen wax samedi prochain 10 heures jàpp 11 ci beneen émission beneen thème ak beneen invité jaa ngeen jëf.